waaw nan nga tudd. man Allé benn MC. Allé. Allé benn MC. waaw. nga doon ñaan oto Wally Seck may oto la tey ban yëg-yëg nga am ci loolu. waaw tey kontaan naa kontaan naa yaakaaroon naa ne dinaa dund ba dee. te duma am oto. ndax heure ma xëy naa naan waaw man fan laa war a amee oto. parce que oto yi su ma waree dem fenn. ci laay centré ni man handicapé laa. parce que oto yi day cher yenn saa yi sax daa am oto bu la yóbbu. yenn saa yi da ngay nekk ci tali bi bis dañ lay romb oto yi dañ lay romb ku la romb dina ko taxaw nga feebar doo mën a dem hôpital kon waaye tey li ñu def xamu ko sax yal na ko yàlla fay xorom waaw def na geste bu nice def na geste noble kon ni ma koy waxee chaque jour rek su weeru ramadan jotee su may defar ay ndogu ñu ne ma aar yow yaa ngi nekk handicapé di defar ay ay ndogu di joxe man leen euh, maanaam damay def geste bu nice comme waaye tey def na tey geste bu nice geste bu noble waaw nan la demee jaajëf tey. ba nga waxee ne ko vraiment bëgg oto mu jot na la may naa la oto bi lan nga yëg. yeneen yi sa yaay jox na la oto dégg du loolu ala bay si bay si kaay maar nga ni guma gooñe dañ ko jox oto dégg naa mu ne xajul ci oto bi. dëgg la oto bi dafa. foofu moom si sant bi dana tos waa parce que yaakaarul ma yaakaarul ma woon waaw yaakaarul ma ne woon àdduna dina dox a dox a dox a dox ba mu am oto yaakaaroon naa dinaa dund ba dee te du ma am oto nee naa sama àdduna ñaari rek ñoo ma desewoon oto ak sama album. te album bi mi ngi pare le 6 incha allah vendredi bi di ñëw ñi def album bi sot album bi addina galaa bi waaw. lan la ban kàddu ngay mujjee ba lan ngay ñaanal Wally. Wally dina ñaanal wér ak wér de surtout ak barke teraanga ak yokkute parce que defal li ma defal moom macha allah waaw instant yii sama xol daa sedd mënuma wax mhm. tey su ma tëddee isaan naa ne waaw jaajëf. léegi est-ce que doo maa fi. noo tudd. Daawur Mbub man ak Aly ñoo bokk ndey ak ci man la toog. Mm-hmm. waaw ma kontaan rek santaat yàlla nag bu baax di santaat sama sëriñ bi sëriñ Sadio mm-hmm. waaw di wax ne lépp suñuy waajur la rek mm-hmm. ndaxte ñoom ñoo soutenir aale ba tax suñ borom taxawu ko teg ko loxo mais li faramaareen bi def dafa rëy sama rakk yi dafa sonn ci oto yi aale maanaam boo gisee nii dafa yéeme te waale bi mu egsee rek bàkki sëriñ Saaliw dafa ñëw rek kot ko fon ko te mënoon na koo seexlu mais defu ko te maa ngi koy ñaanal ci bàkkeb sëriñ Saaliw lu mu yóotu leen yal na ci jot waale yal na bokk ci milliardaire sëriñ Saaliw ji ndax fi mu génne sama rakk ji dafa bari parce que fu nekk dugg nañ pour bëgg pour ñu jàppale ko bañ a yalwaan rek moo tax muy def lii bàkki sëñ Tuubaa aale daf ni moom du yalwaan bañ a yalwaan rek moo ko dugal ci lii mais ak ni ko sunu borom bindee rek yéeme na wali dal xaw eh, ma sax lu ma koy lu ma ko ñaanal wali dal nay wax amin rek sun borom di fajj ay haajo ci bàkkeb Serigne Saliou ndax baña yalwaan rek tax sama rak ji di def li ak bëgg a famem fameem loolu rek daawur mbok wa ma ci aal aussi tamit ñom umu sen jàpp nañ ci ba ci xale bu bi euh, ak ki nga xamanteni modi di pap mi mi mi organiser affaire bi waaw pap pap tamit jàpp na ci bu baax a baax a baax waaw waaw jàpp na ci parce que ah may sa faal jàpp na ci parce que lépp moom la tamit gars yi ñi ci jàpp dafa bari parce que su may lim rek ndax ñëpp dañ koo yéene aale parce que aal dafa sonn buy ñëw déplacement om yombul faramaareen bi génne ko ci Marie Asine may sa biige Marie sa biige maar bàkke Serigne Sall lu mu ñaan lu nekk mu nangu ndax kii suñu boroom def ko nii ba pare doomi coon ji génne ko ci aale day waali moo xam ne bëggee na ko yàlla def ci bàkkeb Serigne Saliou